chers amis internautes euh, bonsoir à tout le monde dellu leen ziar bu baax a baax a baax di feddali suñu colère bien sûr ak ñi nga xamante ni sont fidèles de Walfadjri mais mieux encore ci Walfnet suñu internautes yi ñu ngi leen di ziar di leen bëggee bu baax bu ngeen bëggee ñu gën a kontaan ci yéen da ngeen di dem ngeen abonné yéen a ngi koy gis ci euh, bas écran bi ci cloche bi lu ngeen gën a abonné rek euh, ñu gën a xalaat gën leen a jox ndax Sénégal nag moo soxla jamono jii ñu toll franchement Euh, euh, thérapeutie boobu nga xam ni euh, du force nga koy am ci yow waaye dana wàcc sa stress rawatina ay jëmm yoo xam ni ñu ngi ci Sénégal ma am ci kenn koo xam ni fi mu ne il ko reconnu international même gaa yi ngi woote ci diaspora bi wax ni comment une personne bu mel ni kii ma am peut imiter beaucoup beaucoup de personnes yoo xamante ni c'est des personnes influentes mayu yàlla da nga koy nangu waaye li doon nelaw ci moom fu Net yee na ko mu ngi wuyoo ñooxit waaye tey toogaay bi mu toog. dafa am jëmm joo xam ne nag mu ngi feeñ ci réseaux sociaux yi gis nañ ko mu ngi wone boppam waaye man ba ma juddoo ba léegi damay dégg rek diw boroom jinne yi tey laa mos a toog ak nag koo xam ni ñëpp miin nañ ko ci boroom jinne yi muy kan sëñ daam sëñ daam Walf Net kontaan na ci li nga ko nangul invitation bi man defoon naa ni sax am la yombul waaye ñu ba nga nee ma Walfadjri moom bu ma woowee ma ñëw loolu mbégte laa ci am sëñ daam dama lay bàyyi nga nuyoo ñu door a dugg ci. Euh, laaj yi nga tontu ma. maa ngi lay fay. <laughs> Eh, di la nuyu di la di am mbégte contentement ci ñëw fii. Uh-huh. ndax xam nga ñun moom dañuy dox ci lasraar. dañuy dox ci jinne eh. ndax ku ne xam ne ah déet man dam fi ne bu ma neexee léegi di génnee lii lay jinne man bu ma neexee léegi génne ay jinne yoo xamante ni fii ñu toog nii caamaas da doo defal ndànk rek caamaas xanaa xamoon ni man damaa yori soxna yi jinne damaa amee soxnay jinne man. mais so sëñ daam bala ngaa. damaa yore yi jinne te bu ma neexoon fi ne damay tëdd ba guddi di sëy ak jinne bu ma sëy eh! fii toog tuuti sëyaat ak beneen jinne man damaa ami doomi jinne ke seex. mais te doo du ma jeex. man ni ma gis benn sëriñ moo fi amee soxnay jinne man la maa yori soxnay jinne waaw mais sëñ daam bala ñoo egg ci affaire jinne man fi mu maa ngi lox sax sëñ daam yow jinne yi nunu la feeñoo wala yaa nan nga def ba am relation ak jinne yi caama xanaa déggoole baax man boo ma xoolee xam ne man damaa yoree jinne man damaa yoree jinne yoo xam ne fi ne lu ma neex laay def loo jinne yi bu ma nee woon jinne yi man damay fubal ak ay waa jinne damay fubal ak jinne yi ak ci nii nga mel nii damay fubal ak jinne yi petit camp grand camp di fubal ak ñoom man ni may damay basket Guinée. mais nu mu la dikkee. lambi Guinée mës nga koo fekk. non mosu mës ngaa dem bërëb bu ay Guinée ne. man caamaa dama daan fe damay dem dama daan toog gis jinne nii ñun nii kii mooy roi des arènes de jinne ma xulóog moom. mais xanaa yow que dafa war a am ay. fans est ce que xam nga ni jinne yabuñu ma. fans am na. am na ma est ce xam nga ni sëriñ si ci réew mi man jinne yabu ma xam nga tax yabu ma. jinne hmm. ju ma ca dépassé dama lay ñuus. lan damay ñuus jinne ah mais mais attends. déet ah <laughs> attends sëñ Dame sëñ Dame sëñ Dame sëñ Dame dafa am lu ma lay ñaan nga wax ñu ko ñu bari ñu ngi nii ci question yaa ngi nii ci commentaire yi yow mbir mi na la la duggee. ba ngay gis ay. jinne caamaas man ci ay soxna. man boo xoolee man man lii mbiru yàlla la. daal man sëñ Dame damaa toog jekk-jekk man xam nga man damaa man wax nañ ma bi ma nekkee liir. Mm-hmm. jinne dañ ma doon xëccoo. man sama ma nekkee leen maternité ba ma ne laaj la jinne yi dañ ma doon ko coow di xëccoo ak jinne yi ñu naan sañ daabay dem wala day fay toog jinne yi jekki-jekki ne ma kon nan koo bokk man fi ne damaa am ni ma amee soxna yi damaa amee soxna yi jinne mais ci moment mais ci moment yëpp nekk nit wala ay moment léeg-léeg déedéet léeg-léeg jinne léeg-léeg mënu ma neexee fi ma nekk nii ma soppale ko nekkub jinne bu ma neexee léegi ma soppale ko nekk jinne léegi jinne joo xam ne ñëppay xam ne sañ daam jinne ngi waa léegi xam nga li naan. Euh, euh, xam nga loolu ma fa yaat. na ma naar yi baal waaye ma naar naar yaa ngi. <laughs> weddi am na lu ci wolof wax gis bokku ci. gis bokku ca waaw loo njëkkee léegi nee nga bu la <laughs> neexee nga won ñu jinne sëñ daa man mosumaa gis jinne won ñu ko bu ko defee internet yi gis. mosoo gis jinne xam ni kii mooy jinne ah may ma génne laay jinne bu góor wala bu jigéen. yow ban nga ca bëgg bu góor wala bu jigéen. man bu jigéen bu xees. jinne bu xeesal. waaw may ma tuuti. jinne ju xeesal. bu ma feem de may ma ma génn. moytu maa yedd wi rek. i Eh, eh, sëñ daam sëñ daam dafa ndànk sëñ daam sëñ daam dafa ndànk non non non man man eh, waxuñu lumière waxuñu lumière xoolal sëñ daam jinne yi ne leen ñu taal lamp yi nañ yi na ñëw na ñëw fii ci plateau bi waaw kay léegi nag woon na ñëw ndànk rek bu leen fa laal kenn def leen dànk rek bu leen dóor kenn tey leen rek bu leen laal kenn man sëñ daam maa leen ngeen dal day teel sa kudd googu teg ko teg à leen tegal kudd coon waar teg leen kuuri caamaas baytul balaa ñooy ah, gaañ gisuma leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen puusal buntum xaaral leen fayaat laam bi bay bàyyi kontaan laam bi yow kaay ñëwal bàyyi nga ca na ñëw raange toogal nii toogaatal ni ne kii toog bayee bu leen bu leen jaxasoo sukkal ni yow anañu ñoo nga ne toog leen benn place bu ma nee la mën naa indaay juróom junne yaa ngi ne toog loo wax rek na nga koo ñu ñu ngi ne. gis xanaa. caamaas bu gis leen damay bañ nga gis leen di tiit. man loolu ragal loo ma. ah mën naa leen a génne nga gis leen yàlla ku gëm yàlla boo bëggee ma gis li nga gis leen nii jëxërën mais boobaa di ngay jommi de. mais nga yaakaar li nga ne sa ci du jeex. caamaas boo fi waxee léegi ma génne jinne visible kooku invisible la woon mais man sëñ daam bu la neexee ma génne la jinne yoo gis. jaxaran bu la neexee léegi ma woo jigéen ju jekk ma woo ko waaye nag di nga ci jommi bu la neexee ma woo ko bu ma nomee ma takk ko am nga risque ma ñeme nga ko <laughs> man ah dama koy woo de doomi barali ma woo ko kaay génnal invisible jógal ci kër ba jógal foofu génnal ah man la fekk daam maa lay woo déedéet bul duggi marché bàyyi peñe bi ñëwal non non bul jënd dara ñëwal ba gis la bu la neexee nga demaat ah ko bu dëgër bopp ñëwal pss pss pss est-ce que génnul pss bu dee da ngaa génn na keneen ñëw pss ku fa ne pss ñëw leen pss kaay leen li coono la leen ooy pss la ilaha illallah dinañ de dëgër nañ bopp de woon na pss kaay leen sikk leen jamin la ilaha illallah ah pss xanaa dinañ dañoo xanaa fa ngay ne oo oh, dinañ eh, kenn <laughs> waaw man jinne ya ma yoroon yee saa jinne ya dañoo dem marché ah jami kon baa sañ kon jinne amul tamit dangaa yéex a tëj